بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى kon sunu ñetteelu bind ci al itqaan fi ulum al quran nu tàmbalee ci annawu thani fi maarifati al xadari wa safari mooy al quran li ci wàcc te fekk mi wàcc yonente bi nekkul ci tukki loolu mooy xadari safar yi mooy loo xam da ko fekk ci tukki mu ne am silatul xadari yi kasiira yi nga xam ne xadar yi la mu bari na lool lool du neex a tudd waaye yi nekk safar nga xam ne ñoo gën a néew moom lay indi ay misaal mu ne waa ma safariyu falahu amsilatun tatabaatuha yi ci nekk safar yi nag moom am na misaal yoo xam ne topp naa ko benn benn tataboo ma topp ko benn benn nga xam du ci bàyyi lenn ci coobareem daal منها واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بمن نزلت بمكة عام حجة الوداع كان باب من جتوكي مغين تباب مدينة لدك فأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي عن جابر قال لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر هذا مقام أبينا إبراهيم وبلاجله ne ko ndax lii mooy maqaam ndax ndax lii mooy maqaam ibrahim qaala qaala naam qaala afala nattaxiduhu musalla omar mooy laaj benn far yàlla daal di koy tontul boppam daal di indi wax jooju wattaxidu min maqaami ibrahima musalla wa axraja ibnu danañ wax marduya danañ wax mardaway yi nga xam ne yëpp way la daañu wax daañu wax way daañu wax wuya ku mel si sibo yi dañu wax sibo yi dañu wax sibuya yi ci des yëpp noonu la xaalawa yi xaaluya mardawa wala marduya من طريق عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه مر بمقام إبراهيم فقال يا رسول الله أليس نقوم مقام خليل, خليل ربنا قال بلى قال أفلا نتخذه مصلى فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت ñaar yëpp day dëgëral ne kon Seydina Omar moo laaj laaj boobu yàlla wàcce wàcce aaya joj mën da koy tontu wa qaala ibnul Xassaar nee na moom nazalat imma fi umrati alqada aw fi gazwati alfath aw fi xajjati alwadaa moom doguwut waaw nu mu ci mën di doon rek ci tukki la ndax moom dana benn mu wàcc ci umratul qada mooy ci juróom-ñaareelu at mi ولا موات في غزوة الفتح دي فتح مكة جرام يتلا أدمي لهم ولا في حاجة الوداع دي فكلا أدمي لم تمان دون تتو كلا لب كي مكة لكم ومنها بتاي تي سفر يبقون تكون وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها روى ابن جرير ما يعتبره عن الزهري أنها نزلت في عمرة الحديبية وعن السدي أنها نزلت في حجة الوداع بدي عمرة الحديبية تتكلا بدي حجة الوداع تم تتكلا ومنها وأتم الحج والعمرة لله فأخرج ابن أبي حاتم عن صفوان بن أمية قال jaa rajulun ila nabi sallallahu alayhi wa sallam mutadammixun bi zafaraan mooy mu diwoo zafaraan taqal ci aw yaramam daal zafaraan moo kii la ak gàncax la koo xam ne day am gu neex ñu naan ko kii mooy moo neex chevron chevron jigéen ñi ko chevron ko di ko seen kii seen togg yeeg عليه جبة مسلمك أب جبة جل أب بايران فقال كيف تأمرني في عمرتي فنزلت فقال أين السائل عن العمرة فنزل وقت وقت وأتم الحج والعمرة لله بما فقال أين السائل عن العمرة كده لا يجي كده لا يجي كان له ki doon laaj legi ci mom rek kan bi mu alqi anka siyaabaka summa ghtasil mhm. gis na kay da doon Omar ba noppi te yi ñi tere ci Omar momu def ko mi ngi sol mi ngi sol mbubu ba nopi di wo gëtt xat bu neex mu ne ko su sa yi ta sangu daal di dugg ci nag ينن لوكو سامو ومنها تكون بو بو داي عمره لا رك مو داي وال نكون مكه لا داي وال نكون يونت بي كون بوبو تي توكي لا نك ومنها فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك جوجو نظرت بالحديبيه كما أخرجه أحمد عن كعب بن عجرة الذي نزلت فيه كعب مي ci moom la laa ji wàcce moo wax na ci Xudaybiya la woon والواحدي عن ابن عباس kon Ahmad andi na ko mu jóge ci Kaab Waaxid itam andi na ko mu jóge ci Ibn Abbas Buxaari Muslim du and nañ ko ñëpp wane ne kon Xudaybiya euh, la wàcc ومنها آمن الرسول لا يجوز كيل نظرة يوم فتح مكة ولم أقف له على دليل يعني واحد من لولو من أول ما جسمه تكتلم مام سيوطين الجسم تكتلو لولو بيوانني فتما جسم فتما كل واحد ومنها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نزلت بمنى عام حجة الوداع فيما أخرجه البيهقي في الدلائل في منى لواتي كونتي حجو بيونت بأجون ومنها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح هنا أخرج الطبراني في المعجم الكبير بسند صحيح عن ابن عباس أنها نزلت بحمراء الأسد كون جيت ومنها آية التيمم في النساء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا أو على سفر فلم تجدوا ماء بام فتيمموا صعيدا طيبا لا يجوز لا أخرج ابن مردوي عن الأسلع ابن شريك أنها نزلت في بعض أسفار النبي صلى الله عليه وسلم dana lenn ci tukki yi ci tukki daal la wàcc waaye waxut waxut ban la wa minha inna allaha yamurukum an tuaddu l amaanaati ila ahliha nasalat yawma alfatxi fii jawfi lkaaba ci biir kaaba gi moom gis gis fatxu màkka ci biir kaaba ga yonente bi mu nekkee ci biir kaaba ga dugg ci biir ci la wàcc kama axrajahu sunayd fi tafsirihi an ibni jurayj wa axrajahu ibnu mardawayhi an ibni abbas ومنها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك لم أج نزلت بعصفان بين الظهر والعصر كان ومتم تي بربوك تدعو عصفان لواتي يوين تتسبار تاكسان كما أخرجوا عن أبي عياش الزرقي ومنها يستفتونك قول الله يفتيكم في الكلالة أخرج البزار وغيره عن حذيفة أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له momit ci aw yoon rek moy ci ep tukki rek waaye waxut ci ban tukki la moom itam wa minha awwalul maida benu suratul maida أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أسماء بنت يزيد أنها نزلت بمنى بنت يزيد يزيد وأخرج في الدلائل عن أم عمرو عن عمها أنها نزلت في مسير له كان من على كان kay nag dana وأخرج أبو عبيد عن محمد بن كعب قال نزل سورة المائدة في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة ومنها اليوم أكملت لكم دينكم ما المائدة fi saxiixi an Umara annaha nazalat ashiyata arafata yowma aljumaati ama xajjatil wadaa xadis bu kii moom siiw la te kii Seydina Omar moo moom bisub àjjuma la di bisub arafa ci xajjatil wala hu turuqun kasira moom Buxaari and na Muslim Ahmad ak ñeneen لكن أخرج ابن مردوي عن أبي سعيد الخدري أن نزر يوم غدير خم وانتي بسبب الله من تلوات <coughs> وأخرج مثله من حديث أبي هريرة وفيه إنه اليوم الثامن عشر من ذي الحجة كن موي بنت بسكي بسكي بسكي بسكي marji'u min xajjatil wadaa moy bamuy dëpp bamuy dëpp jóge ci xajjatil wadaa wa kilahuma la yasex nen ñaari mujj mom wérut nen ne ci xadiru xum la wàcce ak ne fukki fan ak juroom la wa min ayatu tayammum fiya fiya moy fil maida waxoon nañ ko ci ginnaaw في الصحيح عن عائشة أنها نزلت بالبيداء وهم داخلون المدينة daaxiluuna بيني madina kon bay dugg si madina ba tey ci yoon wi kon tukki bi wa fi lafzin bil baydaai aw bi daatil jaysh mooy ñaari béréb la yu wuute boo xam ne ku koy nettal daa sikki sàkk ne bii la wala bii qaala ibnu fi tamhiid yuqaalu innahu kaana fi gaswati bani lmustalaq wa jazama bihi fi listidkaar moom ibnu abdul ci tamhid moom daa nettali ne nee nañ nee nañ ci res benn mustalaq la mustaliq ko mustalaq ci istiscar nag moo waxut nee nañ ci sax da cee dogu rek daa wax nag ne ci boobu la rek maaleykum salaam wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullah fa sabaqahu ila dalika ibnu saadin wa ibnu xibbaan ñoom ñaar ñoo ko ñoo ko njëkk ñoo ko jiitu ci dogu ci ne foofa la woon foofa la wa gaswat banil mustaliq hiya gaswatul muraysiya ba tey danañ ko tudde noonu mu ne wastabaada dalika baadul mutaaxirin am na nag ku jàpp ne loolu daal yenn wut maanaa mooy istibaat qaal li tax mu wax loolu mu ne li anna al muraysiya min naaxiyati makkata bayna qudayd wa saaxil wa hadi al qissatu min naaxiyati xaybar mu ne kon wàll wàll gi muraysiya féete bokkut ak wàll gi xissa bi xewe maa kon jàpput ne foofu lay mën a doon li qawli aïchata innaha nazarat bil baydaay aw bi daatil jaysh ndax aïcha ñaari bërëb yi mu tudd yëpp ci wàll gi ñu féete bokkut ak wàll gi mu rey seen féete mm-hmm. waxuma baynal madinati wa xaybar ñaari bërëb yooyu ñoom diggante madina ak xaybar lañ nekk bu dee Muraysiya nag diggante Makka ak Madina la nekk bokkuñ kama jasama bihi nawawi nawawi dogu na ci loolu ci ne bayda ak zaatul jaysh ñaar yooyu yëpp ñu ngi ci diggante madina ak xaybar lakin jasama ibnu tiin bi an al bayda huwa dul xulayfa waa am na keneen ku dogu ci ne al bayda mooy dul xulayfa li am solo ci lépp rek lu mu ci mën doon moom ci tukki rek te loolu la bëgg li ñuy saxaat fii rek mooy ne ci tukki la wa qaala abu ubayd al bakri البيداء هو الشرف الذي قدام ذي الحليفة دابا نكون بيضاء موي دوجو أه، خاوا يكتيكو جاكارلوك ذي الحليفة من طريق مكة قال وذات الجيش من المدينة على بريد ذات الجيش مو بريد بريد رك لي تولو ديغنتي مك مدينة بريد بريد نتوايا لا بو خام دنجو دان نتا جامونو ومنها يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم أخرج ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببطن نخل في الغزوة السابعة حين أراد بنو ثعلبة وبنو محارب أن يفتكوا به فأطلعه الله على ذلك يعني كلهم فخر لن يلا yàlla woon ko seen pexe moom ba mucc waaw ci batn naxl la kon ba tey ci tukki la woon wa minha wallahu yaasimuka min annaas ba tey ci suratul maida an abi hurayrata annaha nazalat fi safar fi sahih ibni hibban an abi hurayrata annaha nazalat fi safar وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي عن جابر أنها نزلت في ذات الرقاع بأعلى نخل في غزوة بني أنمار بدأ ومنها أول الأنفال بدأ نزلت ببدر عقب الوقعة بخيخ بجيخيرك غزوة بدر بجيخيرك بجي لا تدير سبير مدينة كذا كلا أول أنفال واتش كما أخرج أحمد عن سان بن أبي وقاص ومنها دغنا جان فالكون استغيثون ربكم فاستجاب لكم مامتام تي انفال باتاي نزل ببدر ايضا كما اخرج الترمذي عن عمر ومنها كي جي توبه والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم نزلت في بعض اسفاره كما اخرج احمد عن ثوبان ومنها كون قوله بتيجي توبة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ما يتم نزل في غزوة تبوك كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس ابن جرير ما يتبري ومنها ولئن سألتهم ليقول ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كتاب بتيه نزل في غزوة تبوك بتاي كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر ومنها كتاب بتاي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى آه، من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم أخرج الطبراني في المعجم الكبير وهيك توب نان إسناد ضعيف وابن مردوي عن ابن عباس أنها نزلت لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا وهبط من ثانية عصفان ومي عمرة جي بواتي تي تندو تندو عصفان عصفان فزار قبر أمه مدام دون سيتي بارابو ويجرم واستأذن في الاستغفار لها دادي ساكون sàkku ndigalul jéggulul ko wa minha xaatimatu naxl mu jug nax la أخرج البيهقي في الدلائل في دلائل النبوة والبزار عن أبي هريرة أنها نزلت بأحد والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على حمزة حين استشهد mooy niñ niñ def am sa ni mu ni mu mettee ba bam naan bam ne bu ma leen bu ma leen jekkootee danaa danaa def ci noonu nangam ak nangam ak nangam wax lu ñàng ñàng ne na ko def ci ñoom danaa ci rey waaw yàlla nag ne ko nag ku dem bay fay nag na def na yem ci liñ ko def rek mooy wa in aqabtum fa aqibu misli wa axraja tirmidi wal xaakim an ubay ibni kaab nazarat yowma fatxi makka waaye la de moo gën a siiw moom wa minha wa in kaadu la yastafizuunaka min al ard li yuxrijuka minha ki isra أخرج أبو الشيخ والبيهقي في الدلائل من طريق شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أنها نزل في تبوك ومنها أول الحج أول سورة الحج أخرج الترمذي والحاكم وهو تبو آه، حاكم حسن صحيح عن عمران بن حسين قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم بكى ولكن عذاب الله شديد ونزلت عليه هذه وهو في سفر وعند ابن مردوي من طريق الكلبي عن أبي سعيد عن, عن ابن عباس عن أبي صالح عن, عن, عن ابن عباس أنها نزلت في مسيره في غزوة بني المصطلق بامي دم تخزر بابا ومنها هذان خصمان اختصموا في ربهم قال القاضي جلال الدين البلقيني الظاهر أنها نظرت يوم بدر وقت المبارزة ما بدر بني تامبلي رجع المبارزة لن تامبلي ما نيار نيار كن جن في كن جن في نخاخ بكن رأي نيار جن وين تولي فوق تلوات Mm-hmm. <coughs> لما فيه من الإشارة بهذان من هذان جوجو <coughs> هذان دين جفنكو فوق موي فيري نيار نانا مو تي سكنكو بو لول <coughs> ومنها أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير أخرج الترمذي عن ابن عباس قال لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر axraju nabiyahum la yaxlikun bakr gaa yi génn nañ seen yonent géñ naa ne danañ alku yàlla daal di wàcce laaya jooju ci yoon wi kon biñu bi ñuy gàddaay qaala ibnu alxassaar istanbata baadu min hada alxadis annaha nazarat fi safar alhijra mu ne am na ku jëlee ci xadis boobu dégg ci ne daal kon bi ñuy tukki di ci gàddaay gi la la la laaya ji wàcc wa alam tara ila rabbika kayfa madda zil qaala ibnu xubayb nazalat bi taif na taif la wàcc waaye euh, suyuut yi nee na nag walam aqif lahu ala bu sukkandiku ba wax loolu ومنها إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد نزلت بالجحفة في سفر الهجرة الجحفة كما أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك ومنها أول الروم روى الترمذي وحسنه عن أبي سعيد قال لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ba badri di am daa dajante ak ruum ak faris di xeex waa ruum gañe fa ajaba dalika almuminin loola neexoon jullit ñi fa nazarat alif laam miim gulibati ruum ba ca bi nasrillah qaala tirmidi galabati ruum bi maana yaani bil fath ومنها واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون قال ابن حبيب حبيب ابن حبيب نزلت في بيت المقدس ليلة الإسراء ومنها وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم قال السخاوي في جمال القرى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه مهاجرا إلى المدينة وقف ونظر إلى مكة وبكى يمكن دفع والبتك جاكار مكة قال كو جوي يالا واتي وسلام من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من تربية وكيف جاء من قرية أخرجتك أهلكناهم mooy génn nañ la waaye am na ñu leen ëppoon doole te dama leen am alak kon ñoom ñi mënal naa leen ko ñoom it عن المسور ابن مخرمة ومروان ابن الحكم قال نزل سورة الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحديبية بني دب Xudaybiya bañ leen bëgg a omra gaa yi gàllankoor lan ba ñuy dëpp bañ defee sulx bay dëpp bi ñuy dëpp la la wàcc min awwaliha ila axiriha saar wépp wa fi lmustadraki aydan min xadis mujamia ibnu jaariya anna awwalaha nazara bi quraan xamim njëlbeen gi ci quraan xamim la wàcc ci béréb ab béréb la ومنها يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أخرج الواحدي عن, أبي عن, عن, عن ابن أبي مليكة أنها نزلت بمكة يوم الفتح لما رقي بلال على ظهر الكعبة وأذن وبلال يجي تكو كعبة قد نض فقال بعض الناس هذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة بأمان ين يوخ لولو لا يلا واتي لي بون انا سان غوت اي اي اي خات يوي تاخوت نين غننت نعم. نين دي غننت موي لنان ومنها سيهزم الجمع ويولون الدبر قيل نظرة يوم بدر حكاه ابن الفرس واي نك وهو مردود نينا لول واخ جوجي نك دنجو نانكو du wax juñ nangu daal dañ koy delloo mais àndu ci lima sayati fi naw thaniya achar mu ne li li tax àndu ci dana ñëw ci naw thaniya achar summa raaytu an ibni abbasin ma yuayidu nee na ginnaaw bi gis naa gis naa nettali bu ñu askanal ibnu abbas boo xam day dëgëral day dëgëral day dëgëral li wax wala day dëgëral ne yoom Badr la wàcc leerul lool wa minha qaala nasafi nasafi nee na itam sullatu min al awwalina bokk na ci <coughs> ak afa bi hada al xadis antum mudhinuun mais nazalata ñaari laa yooyu fi safarihi ila al madina kon ba muy ba muy madina walam aqif law ala mustanad nag xaw ma fan la sukkandiku moom ba wax loolu wa minha wa tajcaluuna risqakum annakum tukazibun moog laaj yi weesu ñoo tax ñoo sësaloo afa bi hada alxadis antum mudhinuun wa tajcaluuna risqakum annakum tukazibun أخرج ابن أبي حاتم من طريق يعقوب بن مجاهد أبي حزرة قال نزلت في رجل من الأنصار في غزوة تبوك lamma nazalu lxijra fa amarahum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an allaa yaxmilu min maiha shay'a xijra bi ñu tuddee xijra xijra boobu nga xam ne moo lañ tuddee saar woowu itam ko asxaabul xijra googee nee bañ fa wàccee ci xasu tabuk bañ demee ba tollu ko xijra wàcc fa te yonte bi ne bu kenn jëfandikoo dara bu fi kenn jëfandikoo kenn bu kenn jël ci ndox mi dara di ko yóbbaale ثم ارتحل ثم نزل منزلا آخر وليس معهم ماء ñu daal dem wàccaat feneen te amuñ ndox fa chakaw daalik ñu jàmbat ko yent bi ne ko ah kat ba ñu rombe fi am na ndox yaa na ñoom bu fi kenn jël ndox léegi nag soxla nañ ndox te amuñ ndox fa daa fa arsala saxaabatan fa amtarat alayhim xatta staqaw minha yàlla daal di yebal aw niir mu tawal leen بنو نان وبسين وبسين جور فقال رجل من المنافقين إنما مطرنا بنوء كذا كان تنيكي أندون تفك منافق له موخنة ومتعمل تاو بنكو دالو تيالو بكو دالو تيالو تيالو نان نو نو كذا موي كيبو كيبو كيبو سانغام مو نتاول كيبو سانغام مو نتاول يالله واتنا واتجعلنا رزقكم أنكم تكذبون li leen yàlla lay wërsëgale ngeen di ko fayee ak weddi bañ ko ko askan xaa bu ko askan keneen wa min ayatul imtixaan ci suuratul mumtaxana wala suuratul imtixaan yaa ayyuha alladina amanu ida jaakum almuminat mooy ca mujj ga rek ida jaakum almuminat muhajiratin famtaxinuhun أخرج ابن جرير عن الزهري أنها نزلت بأسفل الحديبية حديبية لو سوف ومنها سورة المنافقون سارو بابهم أخرج الترمذي عن زيد بن أرقمة أنها نزلت ليلا في غزوة تبوك وأخرج عن سفيان أنها في غزوة بني المصطلق وبه جزم ابن ابن إسحاق وغيره moom dog ci loolu la dog ومنها سورة المرسلات أخرج الشيخان بخاري مسلم عن ابن عن مسعود قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار في غار بمنى إذ نزلت عليه كن كن منى لا كمان كنت مم من كنت منى سار بقواتي إذ نزلت عليه والمرسلات الحديث ومنها سورة المطففين أو بعضها بين ساري يب ولا بق لين كساري هكذا النص في وغيره أنها نزل في سفر الهجرة كتوكي بمية توكي جم تقدايك مين قدايك قبل دخوله صلى الله عليه وسلم المدينة من لا تأج مدينة ومنها أول سورة إقرأ نزل بغار حراء كما في الصحيحين بابا مكة غار حراء نكتون بير مكة بابا دعنا نجن dem ci àll bi ci àll wala nekkoon moo tax mu jàpp ko safar yi waaye loolu dëgg-dëgg mënees na ko sorewut noonu daal newtoon ci tukki daal wa mina suratul kawsar axraja ibnu jarir an said ibnu jubair ana nazar yawmal xudaybiya wa fiihi nadar bu ne fiihi nadar nag mooy jar na xoolaat jar na xoolaat mooy kon doonut lum ànd jërë seetaat la jërë seetaat ومنها سورة النصر أخرج البزار والبيهقي في الدلائل عن ابن عمر قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم أواصف أيام التشريق أيام التشريق mooy يتفني fan yi topp كي ديك بناك كي ديك nag ci digg ba kon tey mel na mooy ñaareelu fan ba ci fa urifa annahu wala fa arafa fa arafa annahu lwada bi mu wàccee yonent moom daal di xam ne mooy ab ak tàggutoom mu daal xam ne kon ab diggam soreetu fa amara bi naaqatihi lqaswa mu digle mu ne nañ ko nañ ko nañ ko andil naaxaam googee tudd al qaswa mooy gileema gum tudde woon qaswa mu digle ne nañ ko nañ ko ko nañ ko nañ ko nañ ko nañ ko tegal liñ leen teg nañ ko nañ ko ko tegal mooy nañ ko waajal daal fa ruxilat ñu waajal giléem gi mooy liñ ci war a teg ba nit mën cee yéeg ñu def loolu lépp teg ko ci loolu ci mooy rax la suma qaama fa xataba naas mu jóg nag daal di wax ak nit ñi fa dakara xutbataxul mashhura xutba boobu ñuy tuddee xutbatul wadaa xutba boobee bii la ko bii la bi laay ji wàccee bi saar bi wàccee ci la jóg def ko ci yëgee ne kon liggéeyee mat na kon li ko fi des a moom itam muy dénk nit ñi nag di leen tënkal lim leen andiloon lépp euh, annaaw saani kon mooy loolu alxadari wa safari annaaw saalis maarifatu nahaari wal layli lu wàcc guddi ak wàcc bëccëg wàcc bëccëg wàcc guddi am siratu naxaar yi kasiira yi nga xam daa bari lool moom da ko jéem a tudd waaye li gën a néew lay jéem tudd kon li wàcc bëccëg moo ëpp bari na ba mënees koo tudd kon day jéem a tudd li wàcc guddi ni ko defee fële xadar tudd ko safari la tudd ndax moo gën a néew xaalab nu xabibin nazal aksar alqurani naxaaran gisoo yëpp ci alquran bëccëg la wàcc wa amal leelu fata tabaatu lahu am sila suyuti daal ne nag yi guddi nag topp naa topp naa ko benn benn ba am ci misaal minha ayatu taxwilil qibla hmm. qad nara taqalluba wajhika fi sama ba fa hmm. fa fi saxiixayni ak ci ahmad itam min xadis ibni omar baynama naasu bi qubaa fi salaati subh qubaa lañ nekkoon di julli suba id ataahum aatin fa qaal inna annabiya sallallahu alayhi wa sallam qad unzila alayhi laylata qur'anun wa qad umira an alqibla mu ne ku ñëw ne fekk leen ci biir julli gi ne leen yonente bi kat ci ci guddi gi na ci moom ci guddi gi ñu digal ko muy jublu muy jublu ca kaaba bi kon ci guddi la wàcc waa xubaa ñoom ci seen julli suba lañ ko yege ñoom daa na ci julli géega la woon warawaa muslimun an anas an nabi sallam kaana yusalli nahwa baytul maqdis fa nazalat qad nara taqallub wajhika fi sama al aya fa marra rajulun min bani sul min bani salimata wa hum rukuun fi salaatil fajr fekk leen ñu rukuun ñoom ci fajar fekk na wàccoon na ci moom bu yëgoon ko bi mu ñëwee nag fekk leen ñu julli fajar bay rukuun waxa sallu rakka fekk nañ julli benn rakka ba ci ñaareelu rakka فنادى ألا ألا ألا إن القبلة قد حولت waaw wëlbati nañ qibla bi mooy fi ñu fi ñu war a julli bu ñuy fi ñu war a jublu bu ñuy julli kat wëlbati nañ ko fa maaloo kulluhum naxwal qibla ñoom ñëpp nañ nañ nam leen fekke rek ñu wëlbati ko ba jublu kaaba gi lakin fi saxeen an al bara anna nabiya عن البراء بن عازب أن النبي صلى صلى قبل بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا kon diir bi mu julli jëm baytul maqdis noonu la toll fukki weer ak juróom benn wala fukki weer ak juróom ñaar wa kaana yujibuhu an takuna qiblatuhu qibala al bayt waaye mu bëggoon nag li ko gënaloon daal mooy jublu kaaba gi waaye nag fee lañ ko digaloon booba wa annahu awalu salaatin sallaha al asru wa salla maahu qawm daane kon euh, julli gi njëkk julli jublu jublu kaaba gi takkusaan la am ñu ànd moom julli fa xaraja rajulun mimman salla maa am ñi jullee ndoog moom am ci ku koo xam jullee ba noppi dafa dem ba demee fa marra ala ahli masjidin wa hum raaki'un ramu ñeneen ñu julli ci jàkka ñoom ba toll ci rukoo fa qaala ashhadu billahi laqad sallaytu maa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qibala al kaaba wala daal maa ngi seeral yàlla ne eh, topp naa ci yonente bi julli jëm ci kaaba gi waleen daal soppi nañ soppi nañ xibla bi léegi ci kaaba gi data maa ngi seeral ne ànd nag yonente bi def ko fa daaru kama hum qibalal bayt ñu wëlbati nañ nam leen fekkee rek ñu wëlbati noonu ba jàkkaarloo ka ba jublu kaaba gi hmm. fa hada yaqtadi annaha nazalat nahaaran bayna zuhri wal asr kon saxiixaan bi ñu nettali ñoom euh, kon du dugg ci layli yi ñu ne layli dañ ko sukkandikoon ca nettali ba jiitu hmm. te mën naa doon yu wuute itam nag yoo xam yëpp sax nañ mën naa ku nekk jamono jëm ko yëgee rek la nettali maanaam daan doon takkusaan ci yi nga xam ne fekk ne takkusaan ji ba mu fa fekk ñeen ñu julli mu wax leen ko am koo xam ne xëy na ci géege moom lu door a fekke fekke wutoon takkusaan ñu fekke géege moom ba mu demee mu wax leen ko yu mën na yëpp maa diin wal arjaxu bi muqtada al istidlaal nuzuluha bil layl waaw leen li li li gën a kii mooy jàpp ne guddi gi la wàcc li anna qadiyata ahli quba kaanat fi subh wa quba qaribatun min al madina mu ne waa quba ñoom seen mbir ci jullik suba la woon te quba dafa jege madina mm-hmm. Mm-hmm. fa yabudu an yakuna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam axara al bayaana lahum min al asri ila subh nee dana dana sori dana sori mooy dana jafe dana jafe dégg dana jafe dégg yonent bi bañ leen ko wax ñu digal ko mu wëlbati ko xibla ba noppi ca tàkkusaan timis jot waxu leen ko Xubaa soriwut ak Madina mën na faa yebal ndaw ne leen na leen xamal ne kat léegi ñu ngi jublu birub sàngam kon mu doon tàkkusaan timis yebul yeblewu fa gee yeblewu fa ba fajar sax yeblewu fa nit a dem rek yem ci noonu wax leen ko neen loolu dana dana doon lu jafee dégg mhm. dañ naan taxirul taxirul bayaan an waxtil xaaja dañ mhm. dañ naan du du du du lu yent bi def bu dee fu sori mënees naa daa wax ne daa sori waaye Kuba soriwut noonu daa sosoon ci Madina rek nee na kon muxtar listidlaal kon mooy buñ buñ xoolee ci jëfandikoo xel ak ak ak ak ni ñuy daal jàppe na kon ci guddi gi la moo gëneel maanaam bu doon gee moom ci gee lañ ko ko digal mu def ko diggante gee ak fajar mënees naa wax ne diggante boobu yeexe amagu ci yeexe amagu ci qaala al qaadi jalaaluddin al bulqiini foog na mu ne wal arjax bi waaw wa qaala ibnu xajar al aqwa anna nuzulaha kaana naxaaran <laughs> moom nee na li gën a dëgër mooy mu doonoon muy wal jawaabu an xadis ibni omar neen xadis ibni omar bii nekk ci saxiixaan yi déedéet boobu fu nekk mooy boobu niñ koy niñ koy tontoo niñ koy tontoo mooy niñ koy leer leerale li ñuy wax hmm. an al xabara wasala waqta al man huwa daaxil al madina nekk biir madina ñoom ci tàkkusaan rek lañ ko yëg وهم بنو حارس ما بنو حارس ييجا خم نيوم كي كي كي تاكو ساندك لينكو يك ووصل وقت الصبح إلى من هو خارج المدينة ن نك بتي مدينة نك مو أقفا جا مو أقفا جا وهم بنو عمرو ابن عوف أهل قباء نيوم نيوم وقوله قد أنزل عليه الليلة مجاز كون بعض ليلة بنتي بنتي بنتي تود مجاز له مجاز له واجب لون كنا تقول دقيرة لتخ من إطلاق الليلة على بعض اليوم الماضي والذي يليه نعم بس بس بس بيواسو بس بيواسو لنج لنج بس بيواسو أغلاجة توب متودك الليلة قلت ابن سيوطي وحنا ويؤيد هذا لي ابن حجر وحنا انا امنا لكو يدقرل تموي ما اخرجو نسائي يا السنن الكبرى عن ابي سعيد ابن المعلى قال مررنا يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر romb nañ bis fekk yonent bi sallam toog ci minbar bi fa qultu laqad xadasa amr mu ne am na lu xew de fa jalast fa qaraa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadihi al aaya qad nara taqallaba wajhika fi lsama xata faraga minha summa nazala fa salla zuhr pour que moom day leeral ne kon ci tusbaar la moom julli tusbaar la la amee bu ko defee kon loolu li mu wax bu fekkee tisbaar la amee bi tàkkusaan di jot waa Madina mën koo yëg ñoom ña ca des ba fajar di jot nag waa Quba door ko yëg kon mooy ñaar yëpp mën naa mën naa sax ka koy wax waa Quba nag ba ne leen ci guddi gi la guddi gi nee na majaas la foofa rek majaas la hmm. moom sox ma na koo yëg ci guddigi gi jàpp na ci guddi gi laa amee moom moom leen ko wax sax mën naa mu yëg ci guddi mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. fekkee waxoon ne bokkoon na ci julli ga ndax ci moom ki leen ko doon wax mu dana leen rek yonte wàcce nañ ci moom alxuraan ci guddi rek digal ko mu jublu xibla jublu kaaba ga loolu mën naa am moom moo ko yëg ci guddi jàpp na ci guddi la kult waaw kon wamin ha ba tey ci misaali layli awaaxir ali imran axraja ibnu xibbaana fi saxiixihi wa isnaaduhu saxiix wa ibnul mundir loolu kii topp moo ko wa ibnu marduya wala mardaway wa ibnu abi dunia ci kitaabi tafakkur an aïcha ñoom ñëpp indi nañ nettali bii ñu askan saydatna aïcha mu ne anna bilaalan ata nabiyya sallallahu alayhi li salaati subh yuzinuhu mu koy yëgal ne mu koy yëgal ne suba jot na wala jege na fa wajadahu yabki fekk yonent bi sallallahu fa qaal yaa rasulallahi maa yubkiik qaal wa maa yamnauni an abki wa qad unzila hadihi layla lu may tee jooy تاني واتي تمن تي غودي ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار الايات لاولي الالباب بلا تي توب الذين يذكرون الله قياما وقعودا بلا تي توب ثم قال ويل لمن قراها ولم يتفكر جانغلي تا خلاتوت خلاتوت ومنها والله يعصمكم من الناس axraja tirmidi wal xaakim an aïchata qaalat kaana nabi sallallahu alayhi wa sallam yuxras dañ ko daan wattu dañ ko daan garde xata nazalat fa axraja rasahu min alqubbati fa qaal ayuha nnaas insarifu faqad asamanillah dañ ko doon garde bi mu daal di génne boppam génne ko ci qubba bi mooy génne Euh, xayma bi génne boppam daal ne ay yohannas insarifu qad asranillah yéen ñi ma doon gàdde mën a dem ndax yàlla aar na ma ci la dégg ne kon ci guddi la guddi la wàcc ndax bi wàccee wax loolu wa axraja tabaraani an ismat ibn malik alxutami qaal kunna nahnu kunna nahrusu leyl xata nazalat فترك الحرس ما ترك لباي نيكو دان غارد ني ديم ومن سوره الانعام باتاي اخرج الطبراني وابو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال نزل سوره الانعام بمكه ليلا جمله مكه لا واتي غودي لا واتي بن يون لا واتي تام لب حولها سبعون ألف ملك bi muy wàcc lu toll nii ci malaaka ñoo ñoo ko gunge ñoo ànd moom yajaruuna bi tas bi tasbiix ñuy sàbbaal yàlla di di toroxlu ci kanam yàlla jaara mooy tadarra bi duaa wa minha ayatu thalathati alladina xullifu wa ala salaasati llati nuxlifu xata ida daqat alayhim al bima raxubat ba mu jeex ñett ñooñu mu ne aaya ci ñoom moom itam guddi la wàcc fa fi saxiixayn min xadiisi kaabin fa anzala llahu tawbatana xiina baqiya sulusul axiru min al kii da cee bokkoon kaab mi kaab ibnu malik moom bokkoon ñett ñooñu mu bi guddi gi ñett xaaj bi ñaari jallé ba benn xaaj bi dess ci la wàcc ci la jéggal gi nu yàlla jéggal ci la wàcc wa minha suratu maryam rawa الطبراني وأبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ولدت لي الليلة جارية فقال wallaylata unzilat alayya suratu maryam sammiha maryam hmm. dana ko am naa doom ju jigéen biig mu ne ko biig itam de la saaru maryam wàcc kon tudde ko kon de wane ci la wàcc moom itam wa minha awwalul hajj dakar ibnu habib wa muhammad ibnu barakat as saidi في كتاب الناسخ والمنسوخ وجزم به السخاوي في جمال القراء وقد يستدل له بما أخرج ابن مردويه عن عمران بن حسين أنها نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر وقد نعس بعض القوم وتفرق بعضهم suyuti من من من man mën nañoo tegtaloo lii ci ji nga xam ne Imran ibn Xuseyn moo wax ne bi muy wàcc yonent bi daa nekkoon ci tukki fekk am nañu ñu nelaw am ñu tasaaroo bu ne am nañu nelaw kon dañ jàpp ne guddi la mhm. fa rafa biha sawtahu mu daal di koy jàng ca kaw mhm. wa minha ayatul izni fi xuruji niswati fil ahzab loolu itam ci e, qaala alqaadi jalaaluddin wa zaahiru annaha yaa ayyuha annabiyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaai almuminina yudniina alayhinna min jalaabibihinna loolu mooy da leen di may ñu mën a génn mën a génn seeni kër di dox seeni soxla waaye nag bu ñu bu ñu génn ñu génne nii sol lu jot hmm. waaw ñu fa fi Buxaari an Aysata xarajat sawdatu baadama duriba alxijaabu li xaajatiha lii ci soxna soxna yonent sa sallam bi xijaab wàccee yàlla dig digal leen xijaab ñoom muy seen digg ak góor ñi nga xam ne duñ seeni euh, seeni maxaarim am lu fi dox am lu fiy dox bu ñuy wax ak ñoom dara dox seen diggante dara dox fi ab rideau wala ab seng wala ab sàkket wala dara loolu mooy xijaab nit ñee dem tuddi xijaab leneen waaye xijaab moom mooy lool bi xijaab wàccee nag nee na sawda ci soxna yonent bi la soxna ci mag ñi la woon nee na daa génn noonu di dox am aaju aaju jum amoon di génn di ko dox وكانت امرأة جسيمة يعني مو أمون يارم نك مو لا تخفى على من يعرفها دفا أمون يارم با كوكو خام رك بوكو سين دانا خامني موما كان دارا نيكون تي تي تي فرآها عمر سيدنا عمر جسكو فقال يا سودة أما والله ما تخفين ما تخفين علينا يعني نكو يو منو نيو نبو منو منو mënoonoo réer daal buñ la gisoo xam ne yow fanduri kayfa taxruju xoolal nooy génne qaalat fankafa'tu sawra daat ne ma daat dëpp rajaata ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa innahu la yataasha wa fi yadihi arq dana fekk na mi ngi mi ngi reer yor sax ab yax yax يرب يخت لهم جاك بول بام بام دارا دان فقلت يا رسول الله خرجت لبعض حاجات من كده معه من يترك جنون فقال لي عمر كذا عمر عمر نما نانجا نعم مان نانجا نعم فأوحى الله إليه نانا يا الله دارك دارك واتي كموم القرآن وإن العرق في يده ما وضع نانا يعني بيا الله واتي القرآن جبوا يا أخبان كلهم تجوكو تجوكو فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن دارنا ما ينديجل نجلن أم ينديجل يلا ما ينلن ديجل ينديجن جسني أجو قال قاد جلال الدين وإنما قلنا إن ذلك كان ليلا لأنهن إنما كنا يخرجن للحاجة ليلا من قد لين قران قران دف قد لين دان جن تقصيني أجو كما في الصحيح عن عائشة في حديث الإفك حديث الإفك في النجي ومنها واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا وخن نجي لير إسراء لواتون كنت قد على قول ابن حبيب وفكال ابن حبيب وخ جابون انكو تموين إنها نزلت لير إسراء ومنها أول الفتح جلبين سورة الفتح ففي البخاري من حديث عمر لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس حديث بابو ينتبه بقول بابو واتشان كمان بيك بيك صار وخم نموما جنل اللي أدنى أمبو أدنى قلت بيرم ما طلعت عليه الشمس ما اللي جنت بتيم ورق أدنى قلت بيرم ومنها سورة المنافقين كما أخرج الترمذي عن زيد بن أرقم ومنها سورة المرسلات قال السخاوي في جمال القراء روي عن ابن مسعود أنها نزلت ليلة الجن بحراء في غار حراء ليلة الجن ما يقول ديكو جن ينيو يديكو ديكو يديكو مجانا القرآن قل أوحي إلي أن استمع نفع من الجن ومنها فقلت آه، هذا أثر لا يعرف أثر جي موي لي ني نيت لا ابن مسعود ني تي ليتول لا لا لا واتي نينا لا يعرف موي دونوت لو صح لو خام نت لا دال ثم رأيت في صحيح الإسماعيلي وهو مستخرجه على البخاري أنها نزلت ليلة عرفة بغار منى mu ne ginnaaw bi sax laa gis ci saxiixul ismaayili bi nga xam ne da ko defee istixraaj ci saxiixul buxaari mu wax ne ci arafa la wàcce leylatu arafa guddik arafa la ci xaaru mina wa huwa fi saxiixayni bi duuni qawlihi leylatu arafa nee na ci saxiixaani yi ñoom dañ caa wax ne dañ caa wax xaaru mina waaye waxuñ ca leylatu arafa bi buxaari muslim والمراد بها ليلة التاسع من ذي الحجة loolu mooy laylatu arafa mooy guddi gi nga xam ne Mina lañ koy def buñ xëyee la ñuy def la ñuy dem arafa waaye Mina la ñuy fanaan guddi googu buñ xëyee dem arafa fa innaha allati kaana nabi saa sallam yabiituha bi Mina guddi googu la Yonent bi daan fanaan Mina wa minha al muawwidataan waqad qaala ibnu ashta fi l masaahif نبأنا محمد بن يعقوب نبأنا أبو داود نبأنا عثمان بن أبي شيبة نبأنا جرير عن بيان عن قيس عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزلت علي الليلة آيات لم ير مثلهم gisoo بيك بيك wàcc نتمن بيك لا يو laay ما xam ne euh, mësuñoo gis lu ni أعوذ برب الفلق qul a'udhu bi rabbil falaq bam jeex ak qul faron faron kon wax li mu doon wax na layli ak nahaari mu ne wa minhum ma nazala bayna al-layli wa an-nahaari fi waqti as-subh bëgg lu mu tàqale waaye neex tàqale loo xam diggante guddi gi ak bëccëg gi la mooy waxtu suba yi rek nga xam ne xëy na day mel ni guddi gi jeex na te bëccëg bi duggagut moom ci waxinam waaye loolu neex taxaajal dëgg-dëgg xëy na day wane rek ne moom gën nañ ko topp ba mu gën a am kii rek دقرق وذلك آيات منها آية التيمم في المائدة ففي الصحيح عن عائشة وحضرت الصبح فالتمس الماء فلم يجد ويكون في وقت الصبح نقول نخ أموت أمونكو فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لا يبتل عليكم تشكرون كون موم تي وقتو سوبا لا ومنها ليس لك من الامر شيء ففي الصحيح انها نزلت وهو في الركعه الاخيره من صلاه الصبح رجل جولي سوبا تي راك موجي بي تي حين اراد ان يقنط يدعو على ابي سفيان ومن ذكر معه من بابا دا بغونا نيان يالا ابو سفيان ak ñi mu gis sonal guñ leen sonaloon mu bëgg a xunut xunut mooy ñaan ci biir julli rek bëggoon a xunut di leen ñaan yàlla yàlla nag laysa laka min al amri shay'un aw yatuba anhum aw yu'adhibahum tanbih mu ne fa in qulta fa ma tasnau bi xadiisi jaabirin marfuan asdaqu ruya ma kaana nahaaran li anna allaha xassani bil waxyi nahaaran nee na e, boo ma nee boo ma nee nooy def xadiisu jaabir bii di wax lii noo koy def yow nga naan am na lu wàcc guddi am lu wàcc bëccëg nooy def xadiis bi xadiis bi jaabir di wax ne marfuan mooy da ko askanal yonente bi sallallahu alayhi di wax ne asdaqu ruya ma kaana nahaaran gént di gën dëggu ci gént mooy gu bëccëg li anna allaha xassani bil waxyi nahaaran ndax yàlla dama jagleel وحي بيتك أخرج الحاكم في تاريخ لأن بوما نه نوي في حديث بوما نوكو نوكو يدف قلت هذا الحديث منكر لا يحتج به حديث بيه مطمم لا يدعي دي منكر كندو كي كندو كو كندو كي سكنديكو كندو كي سكنديكو كون ووتك موما نيو دارا Mm-hmm. Mm-hmm. mm-hmm. waaw as-sayfi wa shitaa'i naaw waaw mën nañ dem maake man ñoo dem ñett am na ñett yu gàtt yu ci tege rek nga xam yëpp ci biir ci xeet yi lañ dugg as-sayfi wa shitaa'i yi wàcc yi wàcc sayf ak lu wàcc shitaa قال الواحد أن أنزل الله في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي في أول النساء والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها bi ci njëlbeen gi mooy wa in kaana rajulun yurasu kalaalatan aw imraatun walahu axun aw uxt bi ci mujj gi mooy yastaftuunak qulillaahu yuftikum fil kalaala laa ci sayf la ci sitaana wa fi saxi muslimin an umara ma rajaatu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi cheyin fi cheyin ma rajaatuhu fil kalaala mooy yonente nekkuma di ko laaj ak laajaat amul mbir ma ko doon laaj ak laajaat li ma ko ko defee ci kalaa la waaw muraaja mooy laaj ak laajaat wax kom mu tontu la ba noppi nga laajaat ko beneen yoon mu tontuwaat la nga def ko laaj ak laajaat wa ma axlada fi cheyin ma axlada lii fiihi te nee na itam yonent bi itam mus mus mus ta dëgëral jëmee ci man ni mu ni mu dëgërale jëmee ci man ci lool ma xëy na daal daal mel daal yi fi mënutoon dugg sama bopp daal ba mujj mu mu dëgëral lool daxal mos koo def ci neneen xataa saana bi isbaahi fii sadri bu mujj sax mu jël baaraam jam ko ci sama dënd bi nangam waaye wa qaal yaa omar ala takfiika ayatu sayfi allati fi axiri surati nisa xanaa laaya joojee wàccoon ci sayf te nekk ci mujj saar bi xanaa dalaa doyut ولكن بقى خمّان جدا دينسك. وفي المستدرك عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكلالة أما سمعت الآية آه، قال أما سمعت الآية التي نزلت في الصيف يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة ممكن يوم دي كلاج نان كل ما يكلالة من خنا جسوا لا جت مج جواتون كسيف تما يستفتونك قل الله يفتكم في الكلالة ومن ضعفه الذهبي ذهبي تضعف نكو ويستيو سهنة مسلم تكو وقد تقدم أن ذلك في سفر حجة الوداع فيعد من الصيفي ما نزل فيها كأول المائدة اليوم أكملت لكم دينكم كنت دينكو جاب الصيفي مومت أك واتقوا يوم تلجون دينكو جاب الصيفي كنت نحن جابنس كنت أجوغي كي صيفي لامون Sayfu la dajeeloon ginnaaw sax na ne kalaala ci la wàcce kon yi ci des tam Sayfi la sax na ne kalaala Sayfi la te mi ngi wàcc ci xajjatul wadaa kon yi ci des tam ci lay wàcce wa ayatu day ni itam wa suratu nas yooyu yëpp kon dañ ci Sayfi yi ndax ci xajjatul wadaa la ñu wàcce te bu saxee ne lee ci Sayfi la kon yi ci des tam Sayfi la ñu doon ومنه الآيات النازلة في غزوة تبوك كي سيف الأميون كون آية تواكيب ومتم سيفيرين وقد كانت في شدة الحر غزوة تبوك لولا نكرا نيمون تانغور جمعون تانغ لول أخرج البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة وعبد الله ابن أبي بكر ابن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج في وجه من مغازيه إلا أظهر أنه يريد غيره من ينتبه داول جن جم تخيخ لدول موانا بيانان ويات لجم دان ريران تل دان جن رك جبل فم فم بغا جم بغا جم پانكو مننا جن مننكو جم سو مخاوة سوالي دورا دف ريران تل دان جم نبانيا تل خم أو يوانو غير أنه في غزوة تبوك قال بدا تبوك موم دكو دا لير كيساج موم دكو لير بي نيلات جوغل قال اي يا ايها الناس اني اريد الروم غيسو روم تي روم يلا لا جيم تي روم يلا جيم فاعلمهم مو خامل بي نيلات جوغ مي نات ديم وذلك في زمان الباس وشده الحر وجد بالبلاد daa ba ñoon tam ñu am daa ñu am mbetteel ndax jamono daa metti tàng def yëpp bëggut génn ak ñoom ñu jàpp ne jëmuñ am jëmuñ fu metti mu jekk jëmu leen fu metti daa bëgg ñu teel koo xam ba ku munta dem toog ku munta dem toog ñu teel koo xam ne mënu koo dékku mu mën a toog mhm. wa dalik fi zamanil basi wa shiddatil xarj wa jadbil bilad boobu moom daa metti woon lool jamono ju tàng na ba noppi bekkoor am mu metti loolu daal فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في جهازه إذ قال للجد بن قيس اسمه نك جهاز جهاز ما يجي أي بعاسة مرك أي بعاسة بيو نك جي جي جهاز جي جي بعاسة يمكن تاي غيري مك فاسة مك يبدأ في من جفنيكو إذ قال للجد بن قيس هل لك في بنات بني الأصفر قال يا رسول الله لقد علم قومي أنه ليس أحد أشد عجبا بالنساء مني وإني أخاف إن رأيت نساء بني الأسفار أن يفتنني بني الأسفار ما رمي لك جملة رومي نقول لو خمتي جيجيني جيجيني رمي لو خمتي نيوم mu ne ko day خمنا gaay xam na ma gën a maa gën a di néew gën a mën ci jigéen ñi daal ma gën a mën a yéemu ci jigéen ñi te damay ragal bu ma leen gisee damay ragal ñu fitnaal ma daal damay ragal ñu fitnaal ma fa zan lii waaw kon ma kon may ma daal ma toog bañ a dem kon mayam ma toog bañ a dem jox ma ndigal ma toog daal jat jib na xays ma wax loolu فأنزل الله ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا دائما اللي من الوقت دون دقيقة مم دابا قلنا يوم تاجرك أبو مدا ميت وندال بأمن يبارين في وقت أي لاي كي كي سورة توبة يانا كتير نتري وقال رجل من من المنافقين كذن لا تنفروا في الحرب أتانغور ينعمهم tàngoor bi moom bu leen bu nekk nag di génn naan da ngeen yooyu hmm? yàlla tontu ko ne qul jahannama ashaddu harra hmm. kon yooyu yëpp moom ci sayfi la wa min amsilati shitaa'i qawluhu inna alladina jaa'u bil ifki usbatum minkum mooy kon hadisul ifk rek ilaa qawli wa rizqun karim mooy xadis if jëpp rek fa fi saxiixi an aïchata annaha nazalat fi yowmin shaatin shaatin mooy taw buy taw rek bis bu doon taw bis bu taw la kon mooy ci waxtu taw la jamonoy taw mhm. Mhm. والآيات التي في غزوة الخندق من سورة الأحزاب فقد كانت في البرد كيف sedd la woon moo jàpp ci ne ndax sitaay baaxoo sedd fa fi xadis xudayfata tafaraqat an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam laylatul ahzab illa rajula kon nit ñëpp dem nañ bàyyi fi yonte ba mu des fukk ak ñaar fa ataani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal qum fantaliq ila askari al ahzab demal ci ahzab yi fañ dajaloo askar seen camp camp wu ahzab yi mooy noon yi dajaloo dañu songu si قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما قمت لك إلا حياء من البرد موني كو رسل رسل رك موتاخ ما نيو لي وارال لول تا موي سد بيتا نك سد بي دا ميت ميت ميت با ام كرسا تي يا رك موتاخ ما نيو موتاخ مو وفيه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسل عليهم ريحا وجنود لم تروها فهم جيخ أخرج البيهقي في الدلائل الفراشي والنومي <laughs> لكن لم تكن فيك مرتد كلا لم أقل فيك من نلو من أمثلة الفراشي قوله والله يعصمك من الناس لكن لم تكن فيك مرتد كما تقدم ndax mo tax da génne bop bi rek ne gaay yi dem len man ngeen dem yàlla arna na ma waaye tu salaasat la dina xulli fu tam bi mi wàcc ci guddi gi la fekk na ko mu tëdd fa fi saxiixi annaha nazalat wa qad baqi min al leyli sulusu lo nañ ko léegi ci kaam kaam bi nga xamne ci la bokkon wa huwa sallallahu alayhi wa sallam inda ummi salama fek na bobu ma nga te ummu salama ma nga nekk ummu salama واستشكل الجمع واستشكل الجمع بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم في حق عائشة ما نزل علي الوحي في فراش امرأة غيرها من استشكل استشكل mooy jàppe nañ نين لنت لنت lënt lënt دال أمنا a boole daal am nañu jàpp ne am na iskaal moy leunt moy jafe-jafe rek amna ñu ne boole boole wax ji ak le yenté bu xon ci Aysa boole len dana jafe da nak mënut ta nek ta moy dana ma nazal alay alay al fil firash imraatin ghayraha ghayriha wahyu yi wàccut ci man fekk ma ci lalu jigen judul mom mom Aysa ba noppi ñoo bëgg a wax fii ne boobu ma nga nekk umu salama kon day mel ne kon boobu fa tam ci lalub jigéen fekk am na lu mu nekk ci lalub jigéen tey wax ne loolu mën naa jaaxal nit am nañu am nañu ko jàppee euh, tam lënt mu ne qult zafirtu bi ma yuxazu jawaab déedéet daal day njëkk andi ku njëkkoon a tontu qaala al qaadi jalaaluddin دفنا ولعل هذا كان قبل القصة دفنا من نام لي موقتي عائشة دفا جيتو خاو خاو بي بمجو بي من نام التي نزل عن شعر فراس بني أم سلمة فأسيوت إنك ظافرت بما يأخذ من الجواب الذي أحسن من هذا وأنا جسنا أنك لن من جلي تانتو لغنا رفد لي القائد جلال الدين تانتو ni ko ni mu ko firee gis naa prix mu ko gën a rafet moo xam ne daañu leen mën a boole ñoom ñaar tam gën a rafet mooy moo gën a yenu maanaa daal loolu lay andi mu ne farawa abu yaala fi musnadihi an aishata qaalat utiitu tisaan al xadis man abu yaala daa nett xadis bu ñu askane aïcha mu wax ne am na juróom-ñeent yu ma am man aïcha yoo xam ne man rek maa ko am daa daal tudd yooye wa fihi ci biir yooyu bokk na ci wa in kaana al waxyu la yanzilu alayhi wa huwa fi ahlihi fa yansarifuuna anhu mu ne wax yi daana wàcc ci moom fekk ko mu nekk ak ay soxnaam waaye bu commencé fekk ñu nekk ak ay soxnaam ñoom dañuy dem bàyyi ko fa dañuy dem bàyyi ko fa mooy kon dañ dañ dañ koy bàyyi moom rek wa in kaan la yanzilu alayhi wa ana maahu fi lixaafi man nag daana daana wax yi daana wàcc ci moom mu fekk ma nekk ak moom te du tax ma bokk ak moom menn mbalaan lixaaf kon day mel ne lim jagoo mooy loolu waaye du caaginu mooy mooy wax yi di wàcc ci moom ndax Aysa ci boppam wax na waxe ma masaan wàcc ci mom da fekk mu nek kenn ci ñom ñom dañ koy dañ koy may dañ koy may dem bàyyi bam jeex ñu door ñewat mom nak daan de sax mom loolu la wax ne firee ko noonu moo gën a kii wa ala hada la muarada bayn al hadisayni kama la yakhfa kon muarada amu ci muarada amu ci ma kon li sawna ay sa wax rek moy firi leer mu ne ci ci lalam rek moy jigen moy jigen ñi nga xam mom rek jigen ju ju wax daan wacc ci man ci lalam moy ña ca bu ñu bu mu san wacc ñom dañuy dem mom nak lay desal wa aman nawmi mi di fekk muy nalaw mo fa am suratul kawsar lima rawa muslimun anas qaala bayna rasul bayna bayna bayna ak ma ñoyam dañuy wax ñaar yeb bayna ak ma بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاء yonent bi daa nekkoon ci sunu biir daal di fëkk bët igfa mooy fëkk bët dañoo fëkk bët fëkk bët mooy nelaw la yu gàtt yu gaaw rek su ma rafaa rasahu mutabassiman mu daal di siggi di muuñ fa qul naa ma adxakaka ya rasulallah qaal fa qaal أنزل علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الإمام الرافع في أماليه فهم فاهمون من الحديث أن سورة نزلت في تلك الإغفاء ونعم لنجي ديجي نكون إغفاء غوغي مي فك بد غم فك بد كدير بوبا وقالوا من الوحي ما كان يأتيه في النوم لول نيتي لول نيتي ديجي مو تخ ني أمنا وحي لو خامن دان فك من النوم بو نيو لأن رؤيا الأنبياء qaala wa hada saxiix neen loolu dëgg la dëgg la ci ne yonente yi seen gént wax yi lay doon mu ne waaye nag lakin al asbah an yuqaal mu ne waaye nag li gën a yanu maanaa li gën a yanu maanaa ñu ne alquran jépp moom ci yàqasa la wàcc mooy fekkut muy nelaw amut amut ci lenn lu ko fekk muy nelaw wa ka annahu xatara lahu fi nawmi suratul kawsar al munazalati fi l yaqasa mune kon day melne man na am bi muy nelaw la la melne dafa jener saar woowu nga xamne ci yàqasa wacc ci mom way day melne da ko jener da ñëw ci xelam dal xatar law ma dafa ñëw ci xelam bi muy nelaw waye nak bi koy wàcc fekk na mu yeewu aw urida alayhi al kawsar alladi waradat fihi suura wala boog ci nelaw yi jëmmi kawsar ci boppam lañ ko wan ci nelaw yi waaye du saar waaye kawsar ko ci boppam muy dex googu ci boppam dex gañ gañ tudde kawsar ci boppam man naa am moom lañ ko wan ci nelaw yi du càgganu saar wi wàcc ci nelaw yi fa qara'aha alayhim wa fassaraha lahum suma qaala wa warada fi baadi riwayat annahu ughmiya alayhi mu ne ci na ci boo ne ughmiya alayhi wax moom وقد يحمل ذلك على الحالة التي كانت تعتريه عند نزول الوحي maanaam ki wax oxum yàlla itam jublu dëgg-dëgg li ñuy tuddee ixma tamit tàggoog sago waaye da cee jublu rek bu wax yi daan wàcc ni mu daan def diis gi mu daan diis ci moom ba mel ne ku tàggoog sagoom waaye nag du tax mu tàggoog sagoom wa yuqaal lahu burax buraxaaul wax yi buraxaaul wax yi buraxaaul wax yi mooy taru tarug wax yi bi wax yi bi bu daan wàcc ni muy tare ci moom tar googu xëy na kii wax baatu ixma loolu la ci jublu loolu mu daan tax soxna yi yenn soxna yi ci des bu buy ñëw ñu dem bañ faa toog duñ ko dékku daal ndax day metti gis daan ñàq ñàq wu metti diis a diis a diis noonu mu daan def xëy naa moo tax ñu ci des ñoom duñ ko àttan bu dikkee rek ñu ñu génn ñoom bàyyi ko ba mu Aïcha rek moo daan mat moo daan des ak moom qultu alladi qaalahu raafi'i fi gaayati littijaa suyuti na yow raafi'i lii mu wax nii lu lu lu yanu maanaa la lu yanu maanaa la wa huwa alladi kuntu amiilu ilayhi qabla alwuqufi alayhi naan bi ma laata gis lii mu wax sax man mi ci laa jengoon moom laa gën sama xalaat ci la gënoon a jëm wa ta'wiilu al axiru asaxu min al awwal dan taawil bu mujj bi moo gën a wér bu njëkk ba li anna qawlahu unzila alayya anifan kaw kawnaha nazalat qabla dalik mhm. mooy anifan ji wax anifan mooy léegi ci ginnaaw day wane kon wàccutoon lu jiitu lu kon mooy bi muy nelaw day mel dañ ko gaaral jëmmi kawsar bi ci boppam waaye du caagino ci lañ wàccee صار بل نقول نزلت في تلك الحالة وليس الإغفاءة إغفاءة النوم إغفاء جيني ñu wax fii nag jubluñ ci gu nelaw kon waaye mooy anam gi mu daan wàcc بل الحالة التي كانت تعتريه عند الوحي فقد ذكر العلماء أنه كان يؤخذ عن الدنيا كسو day mel dañ ko daan loolu lañuy lañ tudde ixfa xëyant wala ñu tudde ko ixma wala ñu tudde ko yu mel noonu rek al ardi wa samaawi li wàcce ci fekk mu ne ci kaw suuf ak li wàcc fekk mu ne ci asamaan taqaddama qawlu ibni al arabi inna min al qur'ani samaa'iyan wa ardiya wa ma nazala bayna al samaa'i wal ard wa ma nazala taxta al ard fi al gaar wutal na ko ñeent moom mu ne ci suuf si ak mu ne ci asamaan si ak mu ne ci diggante bi ak mu ne ci ron suuf si xaala wa axbar na bu lu ci nekk am na alquran ju ci wàcc ci ci ci anam googa قال وأخبرنا أبو بكر الفهري قال أنبأنا التميمي ابن عربي ما مويوخ أنبأنا هبة الله المفسر قال نزل القرآن بين مكة والمدينة إلا ست آيات نزلت لا في الأرض ولا في السماء am na yoo am na am na juróom-benn laay yoo xam ne wàccewuñ ci suuf wàccewuñ ci asamaan tam salaatun fi surati safaat mooy wa maa minna illa lahu maqaamun maalum wa inna la naxnu saafuun wa inna la naxnu musabbixuun ñett yooyu yooyu la wax ne moom nekk du ci asamaan du ci suuf ينتل ما واحدة في الزخرف ما وصل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون والآية والآيتان من آخر سورة البقرة ما آمن الرسول با بمجيخ نار لاي جرم بين يوي نعم نزلت ليلة المعراج المعراج بلاني نعم نعم قال ابن العربي ولعل ولعله أراد في الفضاء بين السماء والأرض آه خاين لولا جبلو لولا جبلو فضاء تبي ديغنتي دقن ديغنتي أسمع سيك سوس لولا جبلو كون ما مو من سي أسمع سي دو سوسي سوف سي دون تا نيوم ني ñuy firé asamaan boobu daa bokkut ak dëgg-dëgg ci xam-xam moom dañuy wax asamaan ndax bu dee ci xam-xam moom dañ naan kullu ma kon li tàmbalee sa bopp rek jëm kaw lépp ci asamaan sa jaww ndax jaww ji jaww ji wax jaww ji ci asamaan sa ñoo ay jàpp dañoo jàppale asamaan na men xëy na day loo am na dañ koy mën a laal nii te demut noonu moo tax ñu naan du ci asamaan du ci suuf waaye ci diggante bi la uh, قال واما ما نزل تحت الارض في الغار فسوره المرسلات هو غار كما في الصحيح عن ابن مسعود قلت اما الايات المتقدمه مجرم بن يويموخ فلم اقف على مستند لما ذكره فيها لم وخنا ديغنت اسمان سوف لو ليت المعراج مام سيوتي نان غيسوما تيس لايل تيس لايم فوم سكنديكو لول إلا آخر البقرة لدول مجوك بقرة دال جسنا من فيمكن أن يستدل بما أخرجه مسلم عن ابن مسعود لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى بحديث بجيخ وفيه تجي حديث بابا مغتا وخنا فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا ثلاثا يوية من أعطي الصلوات الخمس wa onsiya xawaatiima suuratil baqara loolu moo kon cëslaayam am na cëslaay foofu wa gufira liman laa yushriku min ummatihi billahi shay'an al muqximaat al muqximaat mooy bàkkaar yi bàkkaar yi nga xam ne mën naa tàbbal nit sawara waaye bàkkaar yooyu bu nit ki faatoo ak ngëm rek dañ ko koy jéggal wa fil kaamil lil hudali nazalat amana rasulu ila axiriha bi qaaba qawsayni kon loolu moom ak ca miraaj bala kon boobu da wax daal am na ci fiir am na ci cëslaay moom waaye ci des amu ci gisu seen cëslaay moom luy wane nañ dañoo wàcce ci miraaj kon juróom-benn naw njëkk yëpp day wax ci béréb yi alquran wàcc wala jamono yi alquran wàcc 没事。